Touba am na rek ndax man xale bi sama sët la yaayam yaayam muy doomu bi defal ndam ci bi ci bi yaayam fi yaroo fi defu fi dara lu ñaaw. moom it mu juddoo fi yaru fi macha allah def fi dara lu ñaaw indil ñu ndam lu toll nii nag dañuy kontaan rek kontaan rek di ko ñaanal gudd fan ba ànd ak wér di ko ñaanal yal na carrière am egg di ko ñaanal nañ ko dégg fu sori nag man moom wax dëgg yàlla man jabaram laa waaye damaa kontaan kontaan naa ba mënu maa sori daal ci wax ji maa ngi ñaan rek xanaa mu dollee góorgóorlu dolli waata góorgóorlu fi mu tegoon tànkam ba egg si fii mu continuer ko nag mu continuer ko bu baax a baax ndax fowul reewul ñàkkul kersa ku mu gis jox na la cër fu mu dem kafre rek la see xam kon nag na gën a continuer rek gën a topp li muy def rek ba ñuy di ko dégg fu sori nag yal na raw saajo Mané yal na am ay contrat yi contrat ci barka yonant bi liggéey ndeyam rek daal suñu ñaanal ko rek tufan ak wér ko yàlla musal ko ci musiba ak balaa yàlla yóbbu ko nag fu kawee kawee kawee fu ñu séntu Sadio rek yàlla ko fa séntu ci barke bu baax xale bu yaru xale bu baax macha allah yàlla ko yàlla jàppale di daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah dama ne balaa fa ñax bay sàmm borom saa wee ca mbayaar gis nga li nga am tout ça da nga ko mérité ndax sa yaay nag liggéey na ko sa yaay foo tolloo mën a taayaate sama njaboot ji moom a tax man di daw kon nag ndam li nga xam ne moom la am maa ngi ñaan yàlla yalla na toog moom ba fu ñu dégg Sadio Mané ñu di ko fa dégg ndam li yàlla doon jigraan yàlla na sëdd guy ni ndoxum galaas merci. asalaamaaleykum ñu leen nuyu leen balaax leen baal li ñaan yàlla boole ñu baal di am contentement boo xam ne xam nañu fu mu tàmbalee waaye xamuñu fu mu yem. ndax bi Ibra suñu doom la te rusloowuñu macha allah ñoo yaayam ba ñu xale ba léegi te yàqu ko dara ñu ngi koy ñaanal nag yàlla yokk ko may ko wér ak wér le gudd fan musa ko cat làmmiñ ba mu am lu kawe njortam macha allah. coupe bi ngeen di gis nii conseil de quartier bi moom moo doon finalu ñu war a am coupe bi ñu waree am coupe may ma tuuti bi ñu waree am coupe conseil de quartier bi awuñu coupe. Pape Cissé bi mu waxtaanee ak Pape Baro dégganteeg moom maire daf ko jox mu jënd coupe bi yëkkati xaalis teg ko ci. ñu def suñu final mu neex te loolu conseil de quartier bi la woon waa dëkk bi la woon bon bu ñu doxee ñëw ci bisu Cheikh Ibra bii ñëw tey toog fii ñoom rafet na ñu wax leen ko ñu dégg ko di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que lii mbiru ñëpp la waaw lu ñëpp bokk nag nañ wax ñun ñëpp ñoo ko bokk rek pour mu gën a rafet mu gën a leer ci bopp ñëpp rek nañu gën a ñaanal Cheikh Ibra ba bu déwénee ñukoy téru Europe bon président bi lañuy bay mu égalé moy président ASC Waajur équipe football bi nek fi merci beaucoup ñang balo voilà ma égalé li ma don wax tout à l'heure ma égalé li ma don wax tout à l'heure man ma demandé won sax heureusement Cheikh parce que wax ji dang ko wara fekke parce que lépp lépp lépp yow la maa ngi wax sank ni cheikh ci kon bi la nek xamaluñ ko len lu dul xalé bu yaru xalé bu dal xalé bu am respect envers les autres mais surtout xalé bu am sérieux ci li muy def waxon nako sank sport dafa fiir ku ci sérieuxul ku ne mënoo ci am dara donc résultat bi ñu gis ni tey bettuñu xam nañ ni également mën na lu ko raw te incha allahu dina dem fu kawe loolu je pense que ñëpp a la koy ñaanal amul kenn ku teew fii tey te yéenewu la loolu parce que da nga ko mérité danga nga ko wane donc foo toll del wax amin loolu sama xol laa ko tibbee parce que relation bi ñu am man a yow parce que damay wax de sur le plan personnel man nga gën a yab wala boobu bokk naa ci nga xamante ni moom mooy ñoom gën a yab mais da ko def parce que dañoo minante mais mosoo ma dépassé. ndeysaan moom xaritu Cheikh waaw waaw ndeysaan grand frère la waaw waaw Cheikh nii waaw loolu dafa neex de waaw te muy dëgg waaw te muy Rosa euh, Rosa. waaw kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax a baax waaw noonu la kontaan nañu suñu xol sedd na waaw bëgg nañ ci yéen bu baax a baax a baax xaritam yep gis wa dëkk bi yëpp loolu buñ ko waxul mu doy war njuufaa angi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu nak famille bu mbokk muy tay kërok bi Cheikh Ibra di ñëw kenn desul na njaay mi tay gamu la warona dem da ko bayyi ca tok ndax lan Cheikh Ibra mi ñuy sargal kërok bay Ibra xolal as bi mu am di suñu kilifa ci dëkk bi ñew taxaw di terku Cheikh bon yoy il faut bu mbokk yi teewee ndor yi teew yeen jour yi ñu leen di ñaax ngeen def lu melni wala lu ko upp di ñaan di ñaax Cheikh Ibra soo doon examiné tey amul sax entrant sixième certificat la bon li des ci kan mo upp fouf ta am nañ yaakar ci na ñaan mën na ci dara ak yaru ta am ngeen ko yalla na yok entraîne ba ngi lay ñaanal yalla taxaway bi nga taxaw yalla nako yalla yagal ta saxal ko may la wër ak guddu fan ku ko romb wona la denk la lu rafet doxel ni, buma sañon nga defé ni buma sañon nga defé ne le so defee nii moom mooy gën ci yow lolu du tay ci Cheikh ibrahim mi la mujje ci ay magam la jiitu ak i ndijaayam bon donc Kiné bu ñu fa ñu ngi lay sant di la gërëm di sant Badiane Aïda Thiongaan di sant Mbalu di sant Rama Cissé di sant waa kër gi yëpp ah di su amee ñu jël kàddu vraiment sant ñëpp gërëm ñëpp parce que ndam bu Cheikh bii mu am je pense que ni xëyul rek am ko liggéey la vraiment ci ay at yu bare bare bare bare kon bu ñu jógee sant Madiagne pare dañuy sant famille bi li tax ñu war a sant fay mooy dénkaane dafa yombut nit di nga ko dénk pare di ko yërnu dama see xam lu bari dépp nee ne di ko préfet di ko nuyu di ko ñaanal yàlla xale bu baax doon itam ab taalibe ndax jàpp naa ni am na fu ñu ko jëlee ñu ñëwoon na Guédiawaye nekkoon fa mais sunu borom moo dogalul con ah, contrat bi continuer ndax football mooy demee noonu di wax ni saa su ne rek man xam naa ni ñu dundee Cheikh Ibra moom Euh, wax na lu bare bare bari si yaayu nee na musuma wax sa si yaayam yàlla seere na ko yaayu neen la wax mooy sama yaay mooy sama lépp kon loolu j'espère que moom noonu la toll di nuyu tambaat euh, joueurs yi ma àndal nga xam te ne ñoom ñooy ay coach Cheikh Ibra ñoom ak ñoom ñoo ànd liggéey bi bismillaahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa di ñaanal yàlla Cheikh Ibra Diouf yal na ko yàlla jàppale fu ñu yaakaar ne mu yegg fa yal na ko fa yàlla yeggale kon ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal ndax moom lu yar di am maye rek dina ko am Cheikh Ibra am na yar Cheikh Ibra am na teggin Cheikh Ibra am na diine te loolu ku ko am ñàkkatuloo dara kon ñun dañuy kontaan di sant yàlla. xamante ne nii xew na lu ci buñ ko yëgee ku ci nekk di nga ci def loo mën bon bàjjal li nga wax billaahi dëgg la yéen tamit yéen yàlla nañu saa ñu gëstoo rek gis leen ngeen ànd ak wér ak wërsëg bu yaatu loolu rek lañ leen di ñaanal yàlla. lépp lu ngeen mës a ñaan màkk ñun xam ne ni yàlla nangu na ko yàlla fa yàlla delloo jërë ngeen jëf di ñaanal bu baax nag chaîne télévision yi ngeen fi gis yàlla yëkkati leen. ba ñu nekk ay scène internationale Ali Dia jërëjëf li ngay dox ci biir yaraax di ko taxawee ci ci ci lépp lu xew Mak TV Mak TV Mak TV Mak TV ci kaw ci kanam man samay darab sax léegi dañ ciy imprimer ay Mak TV samay darab yi may fanaan samay sarbat ah euh, Kappa TV nag fii mooy Kappa fii mooy Kappa Kappa TV Kappa TV man ak ñoom ñooy liggéey dafa mel ni man mu taxaw rek di gërëm Madiane di ko sant bon bu ma taxawee man naan Capa TV nangam ak nangam loolu wax bu yàqu la. Capa TV li ma leen di ñaanal mooy yàlla na ngeen dem ba nekk France 24 canal horizon yàlla na ko yàlla def ñan bëgg nañ ci yéen Youssou kontaan nañ ci yéen événement bu am ngeen ñëw keroog daayira bi bi ñu meer di recevoir da ngeen a bàyyi sa liggéey gàddu matériel bi yëpp yóbbu ñu ba bureau jël image yëpp loolu duñ ko fàtte. sant nañ leen gërëm leen sant nak en droit parce que li assalamu alaykum mbolo mi ñu ngi siar ñak di jox ñëpp seen wàccuwaay mais nak euh, manam dajé bi buñ dajé ba tas te tudduñu fi grand frère u Cheikh moy Xaalim Juufa no day nuru leneen parce que tamit dañ né lekk bu lekké aram nako ko coy mais lepp mom la parce que manam yar nako fim ko wara yaré man duma wax suñu papa mais xaadim laay wax ñu ñaanal ko parce que ku jara ñaanal la parce que maanaam taxaw na ko papa côté papa taxaw ko côté yaay taxaw ko côté grand frère tamit parce que ñu ñëpp buñ fi dajee man jàpp naa ne grâce à moom la parce que bu dawoon ay responsabilité am lii du am jël nay responsabilité am fi mu ko war a jëlee maanaam taxawu na ko may ñaan nag mbooloo waaw wax ci euh, mbooloo dafa yombul daal yombul mais comme ñu nañu micro bi rek foog ñu wax du du ma bu ma waxee damay répété damay répété parce que sànq dafa am sama frère El Hadj président waajur dafa wax ju am solo Cheikh Ibra euh, dafa am lu ñu ko sas fi ñu toll lii lii mu gis ni lii sas na muy moom muy ndey na ñi nga xam ni ñooy représenté avenir jeunesse bi je si euh, boo ma mënee exprimer wu noonu. Papa Demba waaw Papa Demba waaw dem ko ñaan rek. la ko ñaan boo paree rek nga sànni ci kàddu wala leer na asalaamaaleykum wa rahmatulah kenn baal ñu yàlla dafa dogaloon ci woon dama ñëw ñu tuddee sibit ba pare ma delluwaat li ko waraloon woon dama ay gan kër ga Cheikh moo lay jox médaille a delloo teraanga ay waay sangal ko li waaye gàcce na li waay waaye yàlla nga indi coupe du indi coupe d'Afrique bi waaw kan bi kan bi maire bi la ñu am Cheikh Ibrahima la ñu am maire bi la ñu am mooy suñu président de la république bi moo tax Cheikh Ibrahima jël na médaille bi takkal ko monsieur le maire Cheikh Ibrahima yàlla nga takkal ak monsieur le maire ay médailles yu bëri bëri bëri te yàlla ko ndax dugal na loxoom ci sport bi bu baax a baax a baax ñan yéenay ñan ah mais ah ñi ñooy jigéenu Cheikh Ibrahima waa jërë ngeen jëf lii rafet na trop waa kontaan ay waay waa nasal si waa nasal si bëgg nañ ci yéen ah ñoom Alaaji Jaw waa acca nañ dugg ñoom Alaaji Jaw da ngeen war a dugg dugg leen am waaw léegi dañ toog 16 ba pare